salaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk comme ni ñu leen ko jigee woon wattaayu yoonu màggal la ñu wax kon nag boobee ba léegi gis ngeen ne ñu ngi ciy ànd yéen mu di ay interview ak ay reportage ak ay découverte ci yenn dëkk yi nga xamante ni ku tedd ki jaar na fi nañ fi nga xamante ne ni moo di Ndaam nañ tamit Daaru Minam waaye tamit dem nañ fi nga xamante ne ni moo di Diourbel loolu yëpp rek day wane ne li nga xamante ni nañ leen ko muy wattaayu màggal kon fépp foo xamante ni rek sëñ bi jaar na fi ci ay dëkk yoo xamante ni sanc na ko wala yu mu sanc lo 24 actu dina def le tour ngir dem ci yenn yi nga xamante ni mënees dafaa dem waaye tamit dañ leen ko diggee woon ba tey tamit dañuy soxla ñi nga xamante ni dañuy waxtaane ku tedd ki saa su nekk mais dañoo togg kenn koo xamante ne ni kenn dootu ko présenté di fii ci mim réew mu di Serigne Saliou Samb moom lañ nar a àndal tey ji ngir ñu waxtaane lu bëree bëri ci ki nga xamante ni moo di Cheikhul Khadim balaa loolu rek duñ def lu du bàyyi ko rek mu daal di nuyoog mbokku la aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi dini wa radiallahu an seyxina ahmadul xadim wa ala xudwatina al azim maam cheikh ibrahima barkeb cheikh abdul karim Mbàkke faddilu noo ngi sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad di feddali suñ kóoluteef ci Amadou Bamba ak maam cheikh ibrahima fall ñu balu xaq bokki jullit yëpp di leen baal di ñaan yàlla san borom boo leenu jéggal waaye di ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak yàlla bàyyil nu ko fi mu gën ñoo sagal di ko ñaanal sëñ Cheikh jëmb waaye ak mbooleem kuy sol sa dal te lislaam tax laa jóg ñu ngi nuyu internetu 24 actu yëpp ak mbooleem ñi ŋànk groupe bi di leen ziara di leen ñaanal yàlla liñ ci yéene yàlla na yàlla kàttanal leen mu yegg jërëjëf. sëñ bi ku naqaree waxtaane la ci wet neex a waxtaane ci ak wet kan mooy ku tedd ki. Cheikh Ahmadou Bamba man huwa Cheikhul Khadim loolu question bu difficile la bu yomb la nag waaw ndax moom adressé na boppam ki mu doon mooy koo xam ni la ñëw na ci jamono bu fekkee ci cadre doomu aadama la ñuy waxe am ay bokk bokk fu baax bokk ci njabootug maam maharam feeñ ci diggante sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak soxna maam Mariama Bousso at mu ñuy wax ama saraa 1270 lésir ci gàddaayu Seyduna Muhammad feeñe ci mbake Bawol ñu njëkk koo xam ci turu Ahmadou Bamba waaye booba nag mu feeñe rek la tàmbali wane ni fi mu jëm ak yoon wi gaa yi jaar bokkul ba tax na ci jamonoom bu njëkk lépp loo xam ni mas na ko feeñal rek doomu aadama yi xam nañu ni kii feeñ ci ñun donte yeggagul ci wax ñu ni maay diw bokkul ak ñun fi ñu jëm am na lu mu wuteeg ñun yàlla dogal mu nekkoon ci loxol sëñ Mbàkke Maam Mor Anta Sali way juróom diiran liñ ko xam presque parce que euh, bu fekkee poroxaan rek moo ko fekk mu nekk euh, kër maam Tafsir Mbàkke Ndumbe waaye daf leen a leen a joindre proxaan nekk fa ak ñoom hmm, soxna maam Mariam bu soo wàcc liggéey ci ase boo xamante se ni taxul woon muy mag ci sayir mu wéyal ab àndam ak sëñ Mbàkke ma waran sëli foofa patar Njaabakunda ba ni ñu ñëwee fii di Mbàkke Kajoor yàlla fa la dogale sëñ Mbàkke ma waran sëli wàcc liggéey ci âge de boobu sëñ bi fanweeri at la am waaye ca teggin ak fonk kilifa ga taxoon na diirub li fi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali di nekk mës feeñal dara mës ta woote lenn nekk ci daara ji rek di ko jàngaleel ànd ak dongoom yi ñu doon benn ba tax na wuur bu njëkk bi njëkk a jébbalu ci moom daanaka bu fekkoon day nit dañuy wax ni ay ñum daan àndandool ci daara ji la waaye ñoom ñooña ñoo teeloon a xam ni Ahmadou bàmba mii moom bokkul ak ñun ba tax na ñu waggaroon ko seen waggaruk bopp am fu ko teg foo xamante ni Euh, xam nañ ni kii bisa ngi ñëw mu bu doon wala bu doon damay wax waxu actualité pour xale yi comprendre ko bisa ngi ñëw mu fel signal fu ñu mënta jaar waaw bi fi sëñ Mbàkke Mor Sali jógee nag un an après ci la woote woote bu rëy Sassine la sëñ Mbàkke Mor Sali dem 1300 net la sëñ Mbàkke Mor Sali dem Assassine mi 1301 ca weeru koor wa 27e jour di bisu àjjuma ci la xëy génn wax ni saafaxa ni rasulullahi bi xawri rabbi ashaabaka bil himmati wala turabihim bi dars faxat hmm, wax nañ sëñ Adama Gueye daal di jébbalu sëñ a Sarr Ndiagne sëñ Massamba Diop Sam sëñ Darou Assane Ndiaye sëñ Mouhamadou Lamine Gueye sëñ Abdourahmane Lo mooy quatrième sëñ Darou Assane mooy sixième sëñ Mouhamadou Lamine Gueye sëñ Darou Assane sëñ Darou Assane ci noonu la noonu la demee ba yàlla dogal ca déwén sa ca ñeenti fan yi la maam Cheikh Ibrahima fa mi leeral lépp ñëw am fa 16 jours muy bisu ñaar fukki fan àjjuma la fa ñëw dimanche ji nga xam ne mooy vingtième jour ci la signé pacte bi mu signé ak Cheikh Ahmadou Bamba ci ni ko ñëpp xamee yàggaatul loolu ñu ñëw Mbacke Bawol bi ñu jógee Mbacke Bawol Daaru Salaam lañ sañ ci fa la Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim feeñe bi muy ñëw di sañ Touba ci jamono boobu la Alaaji Fallu Mbacke feeñ mu sax Touba sept ans ama bay sa sin 1312 ci gàddaayu Seyduna Muhammad ca weeru koor wa 10 jours yu mujj yi la doon def l'intikaaf dernière semaine 1312 ca koor ga ci wax nañ ci la ci la fii sëñ Mbàkke Madina defar jàkk yi ci Daaru Xudóos te ñu koy wax jàkk yi sëñ Mbàkke Madina fi la yàlla dogal mu di fa def l'intikaaf Seyduna Muhammad ñëw sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ahlu badrin xamal ko ni dañuy anticiper sa takk garaat xut bu zamaan xut bu zamaan nag amul lu ko gën a rëy ci doomu aadama yi parce que xut bu zamaan mooy kii représentant de Dieu sur terre xalifatullahi fil ardi kookoy xut bu zamaanu jamono mais Seydina Muhammad wax ko ne dese na la trois mois pour nga am 40 mais dinañ anticiper 3 mois yi 90 jours yi nga desee dinañ ko anticiper ndax sa farlu Ahmadou Bamba takkal la garaat bi tey sëñ Tuubaa d' accord ba pare gàntuwu ko daa d' ba pare ni ko bëgg naa lu ëpp loolu. yonent bi laaj ko lan la bëgg mu ni ko bokk ci groupe bi nga àndal di ahlu badr yonent bi ci ñeewanteem wax nañ ni mu wax wax sëñ tubaa nattu yi ci nekk yëpp ak lim ci li ko lim ci war a daj te ni ko bañ naa sax nga faatu ci yàlla di résilier contrat bi ndax ci li nga ci war a daj wax nañ sëñ tubaa tontu ko ni bakkan bi moom moomu ma ko ba man laa wax kañ la fiy bàyyi ko waaye ki moom bakkan bi bu fi bàyyee bakkan bi ngor ak fit ak jom ju dekk li ma soxla moom am na fi ñu daal di signé pacte bi moom nga dégg Baye Moussa Ka ca waxam yooya muy wax ni buur yàlla daal di signé jox yonen ba mu signé gaaña daal di jiital Bamba lisaanu xaal daal di waxanteeg Bamba ca saaru Yusufa mu teeñu yan ba Bamba ni maay nama dalub lislaam bi nama dal sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu yàllaa ne astahlisu teg li nafsi maa gën a yee ci yan bi duna af si keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga yaa ngi dégg kon booba convocation ñëwagul demagul Mbacke baari ga ko gañ waxee ni tubaab bi day fetal jihaar dëkkagul Mbacke baari moo ngi dëkk Touba Mbacke ba pare ñaan yàlla yoonu géej gi dëkk Touba ñaan yàlla yoonu géej gi moo lay wax ni kon moom bi muy ñaan yoonu géej gi tubaab bi xamagu ko wala bu ko xamee pareegul pour convoquer ko mu ñaan yoonu géej gi léegi yoonu géej gi dafa am ay affaires yu ci gàllu biñ ci ëppal solo ñun mooy ramm gim nuy ramm waa an akuna saafi an li xaw mii yam ca wax moo ñu ëppal solo ñun wa an akuna xaari man fi daw mi loola diggam ak sayyiduna Muhammad la waaye wa an akuna saafi an li xaw mii mooy ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy aw ñooñam te yàlla dogal nu yaakaar ko adduna ak alaxira ramm mi moo ci ëpp doole ci ñun mooy sunu sens waaye nag dafa wax sababu xëybati sababu sama absenté kon par force mu absenté absen absenté mooy ku fi nekkul kon faaw mu génn léegi pacte bi mu siñee ak boroomam faw génn am ci génn mënul ñàkk aw fas la am ci moyen transport fi mu war a dem gaal moo fay dem mu jàpp ki am gaal kon moom moo jàpp tubaab bi xaw ma xaw ma xaw ma li ma wax dinañ ko dégg normal wala déet waaw moom moo jàpp bi parce que signé na mënul ñàkk dem dem mënut a ñàkk fa mu jëm gaal moo fa gaal moo fa mën a dem aw fas mënu faa dem mu jàpp ki am gaal léegi ki am gaal yóbbu ko ñu jàpp ni moo ko jàpp fekk daf ko yóbbu fi mu bëgg a liggéeyee. moo tax bi mu liggéeyee ba ñëw muy ndam lool adduna sépp gisandoo nañ ko bu fekkee ni ay sababu zahir nag mooy bi mu nekkee fii ci Touba ba at moom ma la wax ama bay sa siñ bi ñu ko ba mu am 13 jours ci la fi bàyyi ko sañ ci Mbàkke bari Jolof Euh, nekk fa cinq mois presque ci rajotee jotee ndigalu yàlla ci wuy ji nasaraan bi bi muy wuy ji nasaraan bi tolloon naag commandant bi commandant Leclerc ñu yabaloon ko ngir mu jëlsu ko ñu daje ñoom ñaari jeewal ànd dem Ndar mu wuy ji sababu zahir bi moom mooy euh, kenn ci ñi daan liiral courrier yi gouverneur ñu koy wax maam Abdoulou moo ñëw di seet dégg ko ni na Jolof mu ñëw di ko fa seet fekk fa Samba bi yàlla dogal mu bàyyi koo fa jaar Louga bi mu jaaree Louga ca ka doon defar kase chef de canton yi bi mu ñëwee mu fexe mu fekk ñu war a réparer ñu réparer waa ji réparer cachet wu Samba mu gis kasewu wu bi mu jël këyit gu weex tamponné ci suuf kasewu wu Samba bi mu génnee mu bind ci kaw këyit gi ni yow gouverneur général man Ahmadou man Samba bi ak Ahmadou bàmba ñoo ngi lay wax ni bettuñ la fu nu la fekk dinañ dal ci sa kaw daal dem dugal ko si courrier yi te moom moo war a lire courrier bi bi gouverneur génn di ko liir loo muy liir ba yegg ci lettre boobu mu ni ko loo ci xam mu ni ko xanaa jàpp leen loolu mooy sababu zahir mais baatin ba lële la lam signé woon ak yàlla pacte yam signé woon ak boroomam te war ñu cee ràmm ñun loola mooy baatinu tukki bi lii nag mooy sababu zahir bi sababu màggal gi mooy mooy mooy sababu tukki bi benn la parce que euh, gars yi dañ daan dem ba ñëw bis bi ñu ñëwee ñu ni ñoo gañe ñu màggal ko sëñ Tuubaa bis bi mu déparé ñu war koo yërëm bu doon nit moom la màggal moom la feete 18 safar màggal la sëñ bi wax ni nañ ko ko woowee waaye baat bi mu utiliser bi mu koy santaane sant yàlla la nga wax sëñ Balla Faali Jeng ni ko Balla Faali koo xam ni sama mbég sa mbég la bu dellu seetee na nga ma ci sant la yàlla koo xam ni sama mbég sa mbég la loolu nag dinaay faral su ma ko saab ma ko waaye dinaay faral di wax ni ah kenn ku ne ci ñun yaay xool ndax mbégum sëñ Tuubaa sa mbég la waaw léegi nag dafa am beneen mbir bu ci nekk beneen mbir bi ci nekk moom mooy sëriñ bi moo nu ko sant comme sëñ bi moo nu ko sant te ñun kenn ku nekk ci ñun boo sañoon fekk borom tubaa jamono ba mu def loo la dara kenn ku ne ci ñun bu sañoon fekk boroom tubaa jamono ba mu def loo ko dara yàlla dogal mënuñu koo am te ñi jamonoon teg moom sax ñi ci ëpp amuñ ko ndax mësta sakku ci nit dara dafa teel a wax ni man tàllaluma loxo ku dul yàlla waaw buur yi àdduna yi ko jege woon sax dafa daan wax ni ay dërëm yi bàyyi ko ci loxoy buur soxlaw ma ko man ahmadou bamba yaddi li moonin karimin naafiin samadin laali darahimi ta atti min sulaytini nasaraan bi ànd naag moom sept ans moom ànduloo nag sax kenn ku koy lalal der waaye def ni musuma tàllal tàllal ci seen tàllal leen loxo katabtu fil bahri ani la amudu yadi ila nasara abidil maa kon kooku amul woon muy wax nga rendre ko service service bi mu mës wax nañ ko ko rendre mooy ñu santale ko yàlla bu fukk ak ñett ci diggu gàmmu ñëwee ñëwee loolu mooy sababu màggal gi ko sababit wax nanu ko wax nanu ko ci jamono bi nga xam ne si moo koy woote ndax dafa wax ni Euh, Ama sa Sassine mooy mille 1895 ba 1921 parce que juróom-ñeenti ati njaarim la woote ba 1921 Sëñ Tuubaa dafa wax ni fu 18 safar jotee yàlla dina ful nattu yi ma nattu woon ba mu tonaw mu teg ko ci sama jëm 1921 nag at mooma mu wax ni damaa xëy bis boobu di xaar nattu yi di ko nekk di ko nekk ba njortu ni sama borom daa génn ci lan waxante woon man ak moom waaye sa boroom xamal ma ni génnu ci waaye à partir de at moomu ba keroog ñuy lem asamaan seeg suuf si doonatul ay nattu ay xéewal la njaareem moom njaareem la ko santaane bi mu fa amee neuf ans ci la ko santaane defe ko fa ndax gàtt biñ ci njëkk defar moo ko moom moom borom Tuubaa moo ko moomoon muy bu jigéen mu yónni sëñ Balla Faali mu dem ca séeréer yi njaareem ya nga xam ne ay sàmm lañ ñu changé ko bu góor indi ko mu woo sëñ Moulay Bousso taawub sëñ Mbacke Bousso moo defar gàtt ba ca at mooma euh, bis bu ne ngeen dégg ko ci histoire nit ñi di ko waxtaane mooy ku ne fa nga ne nga ko daa defee waaye bi alaaj falu Mbacke doonee borom Touba la wax ni nen ñëw fii mu gënoon a bëgg te yàlla dogal mu nekk fi ñu fekk ko fi defal ko fi loolu moo ko sabab waaw ah, anam yi ñu ko war a defee moom moo ñu ko waxal boppam moom moo wax ni li ko dalee ci ginaar ba ci gileem bu ci kenn xeeb ginaar la wax bu ci kenn yéem giléem loolu la borom Tuubaa wax bul am ginaar ba xeeb ko ci màggal gi waaye bul am giléem ba jàpp ni rey na jaamu yàlla bernde ci jaamu yàlla yi la bokk ndax bu fekkee ni ku jox nit ab jullit tibub ñam mel nga ni ku tabaxal yàlla junniy juma wala ku ko jox bam rekk nag kon tibub ñam la sayyiduna Muhammad wax léegi ku ko jox bam rekk nag sëñ bi bi mu wootee wax niñ koy defee moo la wan ni nanu jàng alxuraan nanu jàng xasida nanu def istixfaar nanu julli ci yonent bi nanu sàbbal sunu borom lépp lu baax nañ ko def waaye nanu bég tey bégale ndax ak cant la waaw bernde boobu munu du lu mën a ñàkk ci màggal ndax moom moo tudd ginaar ba giléem comme moom moo tudd ginaar ba giléem nag du lu mën a ñàkk te moom lim da bi mu ko santaane dafa defaru ab gàtt kon doonu ci lu mën a ñàkk muy ñuy togg di ko joxe waaw loolu doonu doonu ci lu ci lu mën a ñàkk mag ci màggal gi suñ Tuubaa nag yàlla dogal léppam yàlla nangu na ko waaw ndax moom lépp ma set lépp ma sell moom borom tubaa yàlla nangu na léppam léegi ñun sens bi nu am moom mooy ku ci sellal rek di dugg ci biir lu yàlla nangu parce que mënoon ngaa def ba noppi doo xam ndax yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ko waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom yàlla nangul na ko comme yàlla nangul na ko nan fexee dugg ci moom rek waaw léegi bu ko sellalee rek tàbbi ci moom. Mauritanie Gazawou Sakkour jéeri ji Baye Moussa Ka xibaar nañu si lu ko waral mooy lal yooya sëñ bi yónni woon bi mu defaree këru daaru mën naan gi ba noppi lal yam yónni woon maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Ibra Fall yàlla lal yam leen joxoon ndigal ngir ñu wut ko la ab ab ardo Demba Ngari la tuddoon euh, bi ñu campé dañoo campé euh, am fu nu campé kooka làmb saako yi daj tànki lal yi teg ko ay fetal dem wax ko tubaab bi waaw looloo waral deuxième exil bi euh, dégg nga ñuy wax ni buur siin sax bu foofa li muy ñàkk ñàkk doon jullit teg na ci mantoom ni leen kooku talul ay xeex waaw ba ba ba teg ci mantoom wane ni bu fekkee ni fekk ngeen fa ay ngànnaay man dootuma nekk buur fa ma dëkk waaw ndax kooku ma gis talul xeex waaw jaamu boromam la tal loolu nag si lañ joggi ba yóbbu ko ba exilé ko Mauritanie te biñ ko biñ koy exilé tamit dañoo jàpp ni euh, comme nit ku ñuul la ci ci luñ mën a wax euh, bu fekkee ni yóbbu nga ko ci ci nit ku weex xëy na mu am complexe waaye boobu fekk na moom diggam ak yàlla rasulullah rek a ci dox comme diggam mag yàlla rasulullah rek a ci dox koo mën a doon boo ñëwee ci moom dangay ngay dolli koo ci moom waaye doo ko koy dolli moom Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag tubaab bi xamul woon loolu moo waraloon exil Mauritanie murit akub dërëm ñooy yem dërëm. du wax boromam jaay ma du wax boromam leble ma du wax boromam maye ma day bàyyee boppam boromam rek Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ni moom moom màggal gi moo waxoon nan la murit war a mel dafa wax ni eh yow murit sëñ Tubaay wax yow murit nekkal ci sëriñ bi comme ku faatu ak ki koy sang est-ce que ku dee dina wax raxas ma fii est-ce que ku ku dee dina wax raxasagoo fii doo wax raxasal fii doo wax raxasagoo fii doo wax wëlbatee ma nii sëñ bi moo wax ni wa kun la da sayxi kamayitin wudia bayna yaday gaasilihi tantafia sëñ Tuubaa nee na bu fekkee da ngaa bëgg a jariñu melal ci sëriñ bi ni ab néew ci loxo yi ki koy sang bayna yaday gaasilihi ci ab néew ci loxo yi ki koy sang amul benn geste bu new di def waa ji moo koy wëlbatee nu ko neex moo koy tëralee nu ko neex moom sàngkat bi moo koy defee nu ko neex sëñ Tuubaa nag nee na boo defee noonu tantafian da nga jariñu slogan bi nga takkal sa masque ngir sëriñ bi ngir roy sëriñ bi sëñ bi moom bi ñu ko gisee mu takk masque a sax mu jox ñu ndigal waruñu woon xaar sax mu jox ñu ndigal bi ko gisee mu takk masque ñun ñëpp war a takk masque ndax ñun amuñ ku dul sëñ taxaa ci kaw suuf si ñun ñëpp fu ñu mën a bërëngoo bu ñu yegsee sëñ Muntaxaa dañuy taxaw parce que ci moom la affaire bi mooy sëriñ Touba comme mooy Serigne Touba nag li mu santaane na ko ñëpp def mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw suuf te ñun amuñ ko dul sëñ tubaa loo baax baax ak loo jàmbaare jàmbaare ci Serigne Touba nga yem te Serigne Mountakha yi Serigne Touba li mu santaane nan ko def ku bëgg ñu nangul la sëñ Touba nee na boo bëggee ñu nangu sa mbir bul jëf lu dul ndigal. dégg jëfal ndigal de daf ni bul jëf lu dul ndigal boo bëggee ñu nangu sa mbir bul jëf lu dul ndigal ay damaa nekk te doo jëfe ndigal loolu amul déedéet yow yaa xam li nga nekk quoi sëñ bay jaxate nag dafa waxoon murit dëgg yombul la yombay ka wax ni man ab murit laa te doo ab murit kenn ku ne yaay natt sa bopp sa digg sëñ bi comme sëñ bi moom bul jëf lu dul ndigal la wax xam nga defal ndigal mën ngaa def ndigal ba pare dem def leneen ba sëñ Tuubaa bu waxoon defal ndigal mën ngaa def ndigal ba noppi dem def leneen mais sëñ bi waxu la defal ndigal daf ni la bul def lu dul ndigal laa tafalu say an bu leen def yéen murit yi lu bi xayri izni lu bu leen bu leen def lu dul ndigal fal isnu sartun ndigal mooy sart bi nga xamante ni fi xabuli sa nii mooy tax sa mbir ñu nangu ko bu fekkee ni sa mbir bëgg nga ñu nangu ko ndigal ngay jëf bàyyi jëf lu dul ndigal kon nañ jëfe ndigal yi waaw bu fekkee ni sax nañ ci ndigal yi nag dunu dunu dunu gestu lenn lum ñu tere maam Cheikh Ibra Fall euh, xam naa loolu lay tëjee kàddu gi waaw waaw maam Cheikh Ibra euh, lenn lenn la waxoon dafa waxoon dafa la ni ndax yéen a ngi seytaane waaw maam Cheikh Fall dañuy ah doom yéen a ngi muslu seytaane ñu ko ah, Fall ñoo ngi koy muslu mu ne anu ngeen koy musloo ñu ni aouzu billahi mina seytaani rajim la ñuy wax ci bala ñoo def dara maam Cheikh Fall daal ah loolu taxuta mucc ci seytaane de doom seytaane boo bëggee mucc ci moom dangay ngay sanc ci ab gentam dangay sañc ci ab gentam seytaane lan la gentaloon ndigal yàlla dafa aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbar ñëpp su jot mu gàntu ndigal kon moom dootu dellu ci ndigal maam Cheikh Fall ne ne boo bëggee mucc ci moom da ngay nekk ci ndigal yow noonu lu ñuy musuloo seytaane kon léegi mësul seytaane dootul doon ay wax mais jëf lay nekk waaw saxal ci ndigal rek jërëjëf euh, Serigne Saliou moom dañ sant bu baax a baax di ko gërëm ci disponibilité bi nga xamante ni am na ko nee naa la ñi ñu dañ leen di ñaanal ndaxte ay monument lañ te dañuy fàttali ki nga xamante ni moo di ku tedd ki Cheikhul Khadim dañuy def lu ñaanal ko rek mu yàgg fi lool te ànd ak wér te yàgg gunge nii rek lay demee rek ci seen site bi di 24 actu ndaxte yoonu màggal la ñu wax kon lépp loo xamante ne ni rek xew na ci biir Touba muy avant ak après ak pendant tamit lépp ngeen di am ak 24 actu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen nag yoon ak beneen waxtaankat jërë ngeen jëf